jëf mbëkk mi juratina musiba ci géej gi ubbil journal Le Quotidien ñaar fukki doomi aadama ak juróom ñoo ñàkk seen bakkan ci géejug Mauritanie gi gaal gi moo dem ba biir géej xar ci digg bi keroog altine ci la mbiri xew ci newoon ci gaal gi am na ci lu mat téeméeri migrant ak ñett yu garde côté gànnaar yi sowe li newoon ci gaal gi journal bi ngi ñoo xam ci xibaar yu ñu jot jege na ñetti téeméeri nit L'Observateur nañu waa organisation internationale ay sénégalais ñoo newoon ca gaal ci téeméeri migrant ak ñaar fukk yi gàddu côté Mauritanie yi sowe l'observateur nee nañu waa RFI nee nañ am na ñeenti xale yu ca bokk journal Tribune xëy di ñu jox bilan bu mujj bu tukkee ci gaalug loo ca googee xar ci waaxi gànnaar ñeent fukki migrant ak juróom ñoo ca faatu ñaari téeméeri migrant yu manqué juróom réer ñu sowee ca téeméeri migrant ak ñett bi gaal gi di départ ma nga déparé Gambie yeboon ñetti téeméeri nit ay sénégalais ay gambien na ci gaal gi ay xale ak i jigéen juróom ñaari fan journal bi nee nañu gaal gi def na ko ci géej gi laata ñuy sowee ña ca nekkoon li ñu bari doon yaakaar mu di réew mi su amee ay autorités yu projet bi ñuy indi dana tax ba jeunes yi dàkkal mbëkk mi loolee ak li am du benn projet bi taxul ba tey jeunes réew mi bàyyi gaal gi gaaluk Ahmed Suzanne Camara far na téere police réew mi quotidien bindal ñu ci xëtam mu njëkk ne Suzanne Camara daanu na l'observateur di ñu wax li ko daaneel ubbil yéenekaay bi moom Amath Suzanne Camara bokk ci réseau des enseignants APR ma nga ñu garde à vue ci sûreté urbaine tuumay offense au chef de l'État mu di xutti war may njiitu moo ko fëtee dañu ko invité ci benn émission ci Seneweb TV mu am ay kàddu yu mu fa yëkkati teg ko ci kaw président de la République Bassirou Diomaye Faye ak ci kaw premier ministre Ousmane Sonko kàddoom yi dafa daanu rek procureur bi santaane nañu ko jëli ci sept ci ngoon ca la ko tàmbali auditionné ay boor yi 22 ci lay soog pare ci lañ ko garde à vue gàll ko ko l'observateur ne da ko assumé libération nañu ñaari mbir la koy tuumal mu di offense ak acte de nature à jeter le discrédit sur une institution Vox Populi ne ko dolli ci tuumay xiirtal nit ñi ngir ñu jalgati yoon inciter les citoyens à enfreindre les lois Vox mi ko wax teg ni ci bind ci xëta mu njëkk ne jàpp nañu Lansana Camara ndax kàddu yu ñagas yu ñu ne da ko yëkkati jëmee ko ci président de la république kii di Anita Diop moom it source mi ngi wax ne ñoo ngi koy wër ndax Seydina Omar Touré di capitaine gendarmerie ba woon moo ko plainte ndax nee na Anita Diop da koo tuumal ak détournement ñu def demi tour dellu ci l'observateur mi xëy di ñu xamal ne ñetti xale yi réeroon ca caaru géej te ginnaaw bi ñu mujj leen fekk ñu faatu ci benn wata bu yàqu ñoom ñetti xale yi doy na waar ndax Walf Quotidien mi ngi ñuy xibaar ci xët bu njëkk ne ci fukki fan yi ñu génn lu mat fukki xale faatu nañu ci réew mi ci anam yu doy waar ñii dañoo lab faatu ñii tàbbi ci teen faatu ña ca des réer ba ñuy feeñ ñu fekk leen ñu faatu